Euh, Mansour Faye le beau-frère intouchable du président Macky Sall gis nañu ko ne dàq moom kenn xalaatu ko nee na moom maanaam moom xam na ne ci biir boppam moom xam na ci biiram ne moom kenn mënu koo dàq Mansour Faye maanaam le ministre incompétent du transport et des infrastructures xam na ne kenn mënu koo dàq moom tiitul loolu maanaam yéen li ngeen di tiit ak li ngeen di xalaat ak li ngeen di woori ne yàlla mën nañoo dimbali incha allahu rabbi ba ku mel ni Mansour Faye danañ ko jëlee ci gouvernement wu Sénégal bi pour Sénégal mën a doon pays bu compétent ñu mën a compétir waaye yàlla xam na ne moom Mansour Faye amul boobu tiitaange nee na moom tiitul ragalul xam na ne kenn du ko dàq xam na ne kenn mënu koo yóbbu fenn donc loolu bokkul ci ay problème am moom ça ne pas partir des soucis de Mansour Faye qu'il sera renvoyé du gouvernement voilà donc Mansour Faye le ministre incompétent du transport et de l'infrastructure nous demandons une question les Sénégalais ndax dama jot ojo dama am audio nit ku dee ci accident Kaffrine maanaam bus boobu joge Tamba ak bus boobu jóge Dakar ñu daje Kaffrine te mu bokk ci suñu frère Kanka Moussa incha allahu rabbi jël na rendez-vous euh, j'ai déjà fait mes dinaa dem gis frère am jaale ko fële ci Chicago bu soobee yàlla dinaa fa dem suba jaale frère am ci Chicago voilà dama euh, dañu bëgg xam le nombre de morts. Et nous aussi savoir ce qui est arrivé aux rescapés. ndax am na rescapé bu fi amoon de suñu sœur bu baax boobu Aminata Sow te mu bokkoon ci accident leeral TV bi voilà léegi ma déglu loo leen audio bi ñun ñëpp ñu déglu wandoo ko incha allah. Touba Maydane ñu ngi leen di nuyu di leen ziara yàlla dafa dogal groupe bii ma bokk yaakaar naa bii may gis ay message te yaakaar naa aussi bii moo ci ëpp ay membre ba tax na kon lii ñuy bëgg a wax fii lañ koy yi ndax yéen may dégg. ñoo faatu ci accident bu amee yoonu Kaffrine. ñoo leen yàlla voilà leen te jëggal leen xar leen aljanna firdaws al aala euh, di wax ne nag. jëggal leen. ma ñëwaat. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa Maydaan ñu ma. c'est quoi ça. voice call why would I have a voice. jéggal leen sama instrument yi. jéggal leen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa Maydaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziara. yàlla dafa dogal groupe yi ma bokk yaakaar naa bii moo ëpp li may gis ay message te yaakaar naa aussi bii moo ci ëpp ay membre ba tax na kon lii ñuy bëgg a wax fi lañ koy waxee. ci way dawlu yi nga xam ni ñoo faatu woon ci accident boobu amee yoonu Kaffrine ñu ñaanal leen yàlla yàlla yàlla yërëm leen te jëggal leen xaral leen aljanna firdaws ala di wax na yàlla nañu yàlla teggil natt bi mu ñu teg natt yi amaana bëri na te ku nekk ak fal sa natt nekk waaye natt bi nga xam natt bi général la mooy njiit yu bon yi nga xam ne moom lañu yàlla jox ñu jiite réew mi amuñu yërmande ci askan bi duñu àtte dëgg jëmale ci ñun jël justice bi di ko fowe duñ ñu wax dëgg te alal réew mi ñu yor waroon koo teg ci dëgg teguñu ko ci dëgg teg ko ci naka sudut noona yàlla ñu yàlla teg ñoom yàlla ñu yàlla teggil natt bi te mooy jële leen fi accident bi métti na métti goo xam ni man damaa jàpp ni sax sénégalais yi yéeguñu sax li xew waaw national boo xam dañ ko yemale si ñetti fan même bi ñu ko defoon deuil national fukki at yu tegaloo ñu koy deuil bés bu ne damaa jàpp ni taxul ñu xam dayoo accident bi ndax tàmbalee rek ci ñu wax ñu loo xam ni ay xibaar yoo xam dara wéeru ci mel ni état bi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox nombre de morts yi dañoo am complicité ak journaliste yi ndax bu état demoon tey ba mën a joxe chiffre bu néew ne ñi ñoo ci faatu journaliste yi war nañoo am xarañteef ku toll ni def seen i investigation ba xam ñi faatu ñan lañ ñaata lañ ak ku nekk foo dëkk foo jógee bis bi Dakar la jógee wala bis bi Tamba la jógee ci la bokkoon lépp war nañu ko mën a leeralal man mii sama benn frère daf bokk mooy forte bii ma mujjee dugal. mi ngi judd 1992 tudd Alioune Cissé jàng ba am mbagam defoon formation ba am diplôme am ci wàllu comptabilité am benn euh, euh, contrat bu mu amoon boori Mali mu demoon doon ko xooli yàlla dogal jubawul ak euh, ñam seeti woon ci mbirum liggéey boobu bi muy dëpp ci yoon bi yàlla dogal mu bokk ci accident bi ñàkk ci bakkanam. allahu akbar waaye ba ñu demee di jëli néew bi Kaffrine. dañoo rus man sax dew ma woon waaye sama frère yi nga xam ñoo demul jëli ko information yi ñu fa jëlee man ba ma ko déggee damaa tiit ci yàlla ndax accident bu toll nii lu ëpp quatre-vingts personnes faatu ci man maa ko wax lu ëpp quatre-vingts personnes faatu ci laa wax ñi taxaw naan ñu ay quarante et un ki trente-neuf sama frère bii billahi wal quran ñaari list yi génn nga xam ne ci lañ doon gaa yi jéggal de jégal leen ma de. ni nga xam ne ci lañ doon joxe nombre de morts yi joxe ci seen i tur dèjà mu bokk ci li si te bañ demee di ko jëli la tax ñu demoon. est-ce que déglu ngeen waa ji li muy wax nee na frère dafa bokk ci nit ñi nga xam ne dañoo dee Alioune Cissé la tudd judd 1992 yéen taskatu xibaar yi nee nañu yéen bi ngeen di def liste morts yi sax fa leen yàlla weeree. Alioune Cissé mu judd 1992 sax boolewu leen ko ci liste bi moom nee na ay mbokkam ba ñu demee jëli néew bi li ñu compté ci ay nit yu faatu ëpp na quatre-vingts personnes le gouvernement du Sénégal nous parle de quarante morts trente-six morts on a même entendu cinquante-six quel est vrai nombre de morts ñaata nit ñoo dee lan moo tax Macky Sall ak ñoñoom ngeen mën a fen pourquoi vous mentez le gars il est allé chercher son frère bi ñu demee jëli frère am nekkul woon sax ci liste des morts xoolal yàlla bu la bëggee weer nañu continuer déglu li muy wax. ko jëli sax mooy newoon nañu day dem Kaolack day dem Mali euh, te bi muy ñibbi si woote woon na ne mi ngi ñëw te dégg nañ accident te gisuñu ko ba léegi xam nañu kon ñort nañu ci la bokk bañ demee Kaffrine effectivement ñu fekk fu néewam xam ne kon faatu na. imaginez lii. xam ne kon faatu waaye li gën a yéeme mooy biñ ñëwee di jël si néew bi maanaam. nekkul ci non seulement bokkul ci liste bi faatu na waaye sunu kaar dafa bari moo ñu ñëwoon doon jël seen i néew te ñoom seen i néew bokkul ci liste yi njugal sama frère bi nga xam ne moom moo doon compté nga xam ne intellectuel la di jéem a def recensement selon. list bi ak ña nga xam ñoo fa ñëw di jël seen i néew te seen néew bokkul ci liste bi la mu fa jot a compte rek moom nee mat na soixante neuf personnes. déetawaay ñi réew mi jugee fee naan deux cent millions ngi nii ci ñoo xam dañuy xëy di sàcc ay milliards. deux cent millions yàlla seede na ni kenn ci rescapé yi nga xam ne maanaam ñoo dund te bokkoon ci accident bi wallahi azim deux cent millions mën naa faj kenn kenn nit laa deux cent millions mën na ko faj ndax deux cent millions mën na koo faj ñu bëgg a génn deux cent millions naan séddale nañ ko mais subhanallah mel ni mel ni ku tiit xaalis ñun dañoo soxla gub xaalis li ñu soxla kay mooy xam ñi faatu ñan la ñi nga xam ne ñoo nekk di dund actuellement ci yan hôpital lañ leen yóbbu ak yan yan yan médecin lañ leen booleel pour ñu saytu leen ak fu seen dund toll ah nan lañ mën a góorgóorloo ba ñu faatu loolu moo waroon nekk wax ji salaamaaleykum maaleykum salaam deux cent million génn naa deux cent millions jàppale naa ko ñi def ci accident bi ñu ne deetawaay nga jël sa ministre boobu nga xam ne ab cuune la xamul dara ci biirum transport taxaw wax fi ay wax yi wax yi ñàkk fayda wax ñàkk teggin yoo xam ni kenn subhanallah ñun réew mi fi mu toll nii dañ ko war a dañ ko war a xoolaat de lii lii bu continuer dina doy waar trop waaw fi réew mi jëm baaxul fi réew mi jëm baaxul waaw ñii jiite ñu dañuy fawee jàppe ñu ay mala jàppe wuñu sax ay doomu aadama lii dafa ñaaw wallahi dafa ñaw ñaaw na trop ci kanamu yàlla waaw. dégg ngeen li waa ji wax dama leen di indil interview euh, Mansour Faye ngeen xool ndeysaan ñun la la ñu yàlla baaxee xool leen yàlla lim ñu baaxee bu ma leen paree euh, pas le même sujet mais dinaa leen indil interview euh, ka nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang xamul sax les pays de l'UEMOA les pays de l'UEMOA Mac euh, euh, président Macky Sall dafa indi ay ministre ci Sénégal yoo xam ne xamuñu mënuñu laa limal les pays de mois ñëw leen ci Mansour Faye déglu leen Mansour Faye. allô c'est à moi. xool leen xool leen. Mansour Faye est-ce que vous m'entendez? oui je vous entends maintenant je vous entends Mansour Faye, Mansour Faye, est-ce que vous m'entendez Ma question consistait à savoir si les autorités sénégalaises allaient prendre en charge les victimes de cet accident. effectivement, il a été prévu, donc la prise en charge de ces victimes à travers le ministère en charge de la solidarité nationale et chaque victime décédée va recevoir un appui de l'État dañ li lii Mansour Faye nee na c'est prévu et oui c'est prévu à travers le ministère de la solidarité nationale que chaque victime blessée aura l'appui de l'État maanaam chaque victime de cet accident aura l'appui de l'État Macky Mansour Nular xam ngeen ñaata la ñu ne la ñu ci presque soixante-dix morts ci presque deux cent ma gars yi mat nañu deux cent parce que accident bi euh, bus bu ne ay cent quarante personnes ñoo nekkoon ci ñaari bus yi total donc daanaka ñi ci faatu presque soixante dix daanaka genn wàllu doomu aadama yi faatu nañ xam nga ñaata la ñu joxe nee nañu deux cent millions yéen ak may déglu deux cent millions mooy doomu Mansour Faye bu jigéen boobu li mu jëndee woon kër Ndar waxuma Dakar de Ndar Saint-Louis xam ngeen Mansour Faye wala Mansour Junior oto yi ñuy dawal ñaata lay jar deux cent millions wala cent cinquante millions xam nga ñaata lañu ne doomu aadama yi ñàkk seen bakkan noonu yëpp ñaata lañu leen di séddale deux cent millions de francs CFA le président Macky Sall génne mu ne ñu séddale ko victime yi yëpp ñi dee ñi dund yëpp lañ leen ko seddale lii mooy Sénégal ngeen ne ñun waru waruñoo wax ñun bu ñu waxul Sénégal fan la jëm xam ngeen luy deux cent millions de francs CFA c'est moins de quatre cent mille dollars xam deux cent millions de francs CFA boo ko joxee nit ku gaañu nit koo xam ne borom kër la bu mënta liggéey nit koo xam ne doomam comme ku mel ni kankam Moussa tey te ma seede ko mu yoroon dundu yaayam doy yor dundu jabaram yor dundu famiyam ku mel noonu boo ko joxee un million de francs CFA loolu li mu daan dugal ci këram un mois moo ko ëpp ndax moom moo moomoon bus bi naka ngay dédommager presque deux cent personnes nga jox leen kenn ku nekk un million de francs CFA ngeen ne ñun waruñoo wax ñu exagérer ne leen ku nekk un million cinq cent mille te duñ ko gis ils ne le veron jamais dama leen di wax dara dama leen di ñëw léegi ci la rescapée da leeral elle xam nga ñun li ñuy def toujours dañuy bëgg a garder audio yi euh, accident bi bi mu amee ndaw sa defoon accident ci leeral dafa daw dem fa déglu leen li mu wax. yooyu ñëpp si nekk yaa ñëw nañ fi mooy le jour ji rek la la bi di am su weesoo ñii ñëpp dañ di fàtte parce que dama ko suivre dama mooy accident journaliste yi amoon euh, Kédougou. cortège yu Leral TV cortège le président a fait un beau geste ñëw fekk ma ma ma ak euh, mais depuis lors jël ñu en charge ñi décédé ñu ngi noonu waaw ay xale taw tëdd depuis loolu ma maa ngi sant naa yàlla parce que xëy na yàlla xol lay fay tey ku ñëw dem def ay subvention def ay tabax ay ay daara def yeneen ak yeneen dama delloo lépp si yàlla mais nag dama xam ne ñoom il faut ñu ñuy bàyyi xel dañ ma dañ dañ ma seetaan te ñii tamit naa ne dañ leen di seetaan ñii nii tëdd nii tey loolu moom moom métti loolu moom moom mu jël parce que dañ buñ fi jógee ampleur bi mu am rek dinañ ñëw teew buñ demee fàtte nañ leen te doomu aadama dafa foor yàlla daf ko daf ko sàkk ba pare aj ko yéegal ko ci kaw mais si si lu muy dund man tey dama ñëwoon ànd ak waa waa TVA indil leen ndox parce que bu ma ko yëgee ma ne mënutuma dem il faut ne la tourner ñëw parce ba mu ñëwee chef de service mu naan xam na ma que yàgg naa ko defal geste social si benn xale boo xam ne finalement dafa desete woon tey ma ñëw ànd ak ñoom si naqar bi ànd ak ñoom si dëy bi mu métti lool. d'accord léegi ba nga gisee koor yi ñu leen di compter ñi nga xam ne seen bakkan mu ngi léegi ba nga gisee yi ñu leen di compter ñi nga xam ne seen bakkan mi ngi ci diggante dund ak dee Amina en tant que jigéen. sentiment bi. non en tant que jigéen sant naa ne métti la sama xel dem na si sama accident ñu dund nañ dund parce que plus de cinquante quatre c'est trop dix rek bëri na wax wala nag cinquante quatre. plus de cinquante quatre plus de cinquante quatre dañ koy jox n'importe qui. plus de cinquante quatre koy wax démb kii ma àndal nii Amadou. moom moo ñu dogal indi ñu c'est un fait démb dama taxaw kaw la ku si nekk naan ko Amadou ah, utal ma permis utal ma permis sa liggéey rafet na mais dama gis Dakar da ngay joxe sa cent mille ñu utal la permis waaw doo def sax conduite doo def dara tey ñu koy def sax duñu leen sensibiliser chauffeur yi tamit dañu na bàyyi si lu leen neex dina bàyyi parce que tey ñii ñi fi tëdd nii tey am nañu ay yaay ay part de responsabilité ñoo xam ne dañoo daal yoon doole pour yóbbu dem jox seen njaboot tey ñu ñëw tëdd fii gis naa ci koo xam ne dama dugg sànqal mu ne ma dama wuti woon lu ma fajee sama doom tey ma accidenté nii loolu dafa dafa métti tey loolu dafa métti trop vraiment c'est dur c'est dur vraiment. Cette dame-là, elle a toujours des fers dans son corps. Aminata mi damay wax ak moom toujours ba léegi feer yaa ngi ci yaramam yéen a ngi fàttale ko tournée économique bi Macky Sall ne woon lay amal ba ànd ak Leeral TV Dame Dieng ay nit faatu dam Dieng nit ñi bi ñu faatoo seen yaay yi bi ñu ñëwee Leeral Dame Dieng nanguwu leen sax recevoir Dame Dieng mu lëndëmal nanguwul sax recevoir la maman des morts ci Leeral dafa ne euh, employé yi Leeral pour ñu ne leen moom nekku fa il n'était pas là mu dem ci président de la république ñu jox ko maletu xaalis moom mu jël malet bi mu kott ko jëlul rescapé yi en charge xaalis bi Macky Sall di joxe pour nit ñi mu yegg ci ñoom xaalis bi ñoom dañ koy sàcc du yegg sax ca ña nga xam ne ñoo ko soxla ministre Macky sàll bi nekk Kaffrine château la fa tabax bokk na ci euh, c'est le vice-président de la fédération des football sénégalais je ne sais pas quoi quoi quoi xam ngeen ki may wax mooy kañ fi jàppoo woon muy njaaloo noonu le ministre la maanaam ñoom dañoo tàmm sàcc ba bu ñu amul lu ñu sàcc sax seen yére bi ci boppam dañ koy dindi teg ko sàccaat ko sol ko te ñoom ñoo ko moom tellement que c'est des voleurs li ñuy wax nag rescapé la ñu wax nañu ñëw ci rescapé yu bees yi ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ci jafe-jafe méttit bu bees bii ñu génn am na rescapé déjà bu tàmbalee wax nañ ko dem déglu ci xaar leen ma indil leen ko ñu dégloondoo ko ndax ñu wax ci ginnaaw kenn ñun bëgguñoo jëw kenn bëgguñoo xal kenn déglu leen ñu defal analyse ba pare ñu doog maa yóbbu fee ci hôpital bu mag bi voilà déglu leen waaw kii ci accident bi la bokk déglu leen ñu opéré loxo bi même bu ñu opéré loxo bi ñoom wax naa leen saa man sama faar yi dafa am problème hmm. mais ba léegi ñoom laaluñu sama faar te man sama faar yi mu toll nii moom mooy sonal ci xaar da bu baax a baax a baax ni fi may wax ak yéen nii métti bu garaaw laay yëg te ñaar ñaari faar yëg loxo bi nii bi mu jóg lii. Mhm. te bu ñëwee xool nii ci kaw. Mhm. te gis kaañu gars yi man xam naa ni fii dafa am yax benn yax bu damm quoi ndax loxo bi mënul def dara. Mhm. mais ñoom ci biir hôpital bi chaque jour ma wax leen docteur yi ma ne jàppale leen ma sama faari yi ñoom nag sama loxo bi rek la ñu tànkuwaay. opère ko nag. après dëmb ñu bàyyi ma. prise en charge ndax état bi mi waaw nii nii nii moo jël en charge waa. Mhm. waaw. ndax man nag dëmb ci guddi laa ñëw mais dëmb bi ma ñëwee tey dem naa kàccaaro bi sax ñu ne ma non waruma ñëw foofu naa dem ci beneen hôpital quoi ma ne ko ban beneen hôpital laa dem mais nangu ma leeral waa te man instant yii su ngeen ci jàppale hôpital bi ma war a dem ni li ma dund nii dafa métti bi ngeen ñi avant ngay génn ci hôpital bi. Hmm. du ñàkk dinañ leen booleeg benn responsable boo xamante ni dinañ leen ni boo soxlaa dara wala boo leen waree dem hôpital jokkoo leen ak kii. non non non man moom bi may génn ñoom wax ma dara. fi mu leen ci ay loxo kenn. non non non ah, ah, daal bi ma jox daal ñu ne ma daal su ma demee hôpital rek. mën naa ci def ay passement sama loxo bi man ma ma bindal kayit bi mooy ne papier yëpp indi naa ko. loxo yi. leneen la dal waxuñ ci dara. non yeneen yi moom waxuñ ci dara moom. te carte boobu moom nga yóbbu Kàncaar ñu rejeté ko. waaw moom sama faari moom te yàlla euh, sama nama te du la ay caaxaan. sant lan ngeen di xaar ci état ci seen wàll santé. non état moom suñu wàllu santé moom liñ ci xaar bari na bari na trop trop trop trop trop ndax nit moom foo feebaree war ngaa fayu xam nga foo feebaree war ngaa fayu mais boo gisee nii ni nii nii ñoom ñun fi ñu def soog bi ñoom ba dem ba jaaxle amatuñu fu ñuy def malade bi loolu problème état la. Mhm. loolu loolu nag amul kenn ku fi war a saafara lu man gis naa malaad yoo xam ne ne wax dëgg yàlla amul fu leen teg ndax hôpital yi bariwul man ñaari hôpital rek laa gis foofu ci li ma gis man ñaari hôpital laa gis bu hôpital bu mag ñuy wax ak njëkk a ñëw am na malade yoo xam ne xam nga ni boo xoolee nii man dem bi may génne ñoom ñëpp wax naa leen ci sama kanam rakk bi. ma ko man yéen a may gënaloo nii de mais wax dëgg yàlla wéruma ah. ñoom ñoo ma gënaloo mu ne ma noonu gënal boo gënee léegi boo demee sa dëkk mën nga faju foofu quoi dem bi may ñibbisi man oto bi démb bi ma ñibbisee ba ñëw bi mun ma toog ndax xam naa ne wéruma te wéruma woon toog ci oto ci ay bis nga duggaat wala. non non non sept laa duggaat. sept kon ci say paasal sama bopp kon da nga ni génne bi ñu la génne dañ leen a bëgg a profité pour ngeen dem. ci accident daanaka mën nañoo ne bu gëna a rëy ci histoire du Sénégal. un rescapé sort de l'hôpital trois jours après l'accident après le déclare la grande déclaration du président Macky Sall le national. waa ji nee na bi mu génnee hôpital moom moo paasal boppam te sept place la jël kii dafa bokk ci accident bi gën a mag ci histoire du Sénégal bi xew barki démb Kaffrine ñu continuer déglu. loolu loolu man loolu laa gis parce koo xam ne toll na ci blessure bu mel nii yàlla def na nga mucc ci accident bu mel nii waroon nañ la téye ba nga tane bu baax. Mhm. ba xam ne lii dara méttitu la sa yaram ñu bàyyi la nga dem. mais man li may wax yéen ni wax naa leen sama faar yi moo am problème depuis boobu docteur yi wax naa leen ñoom ñëpp laa wax docteur bu fi taw rek dama la koy wax xool ma samay faar yi te ñoom def nañu rajo samay faar yi gis nañ ko gis nañu lépp mais gisuma dara benn effort lu ñu def samay faar yi ndox gis ñu opère ko ñaw ko def ko bandage bi jeex na ñu bàyyi ma dem ci guddi bi may bàyyi dem moom ko man mënuma génnee nii ndax wéruma mu ne ma tànne nga. tànne nga daal demal sa dëkk am na kayit bi ñu lay jox boo demee di nga faju foofu quoi. mais nit koo xam ne nga nekk ci soog soog bi nga nekk dafa métti boo duggaatee ci oto rek da ngay am problème. boo duggaatee ci oto da ngay am problème. état bi moom la ci des moom si liggéeyam bari na trop trop trop trop trop waaw. diggante bi ngeen ñëwee Dakar rek léegi amul kenn ci nguur ci koo xam te ni ci nguur gi la bokk ku leen woo. nee ne man bi ma ñëwee fii amul kenn ci nguur gi ma woo amul kenn xanaa à nii. donte dénk nañ seen numéro fenn foo xam te ne nii wax nañ leen wala dig nañ leen ne dinañ woo. Euh, non non pour man de dénkuma fenn numéro pour ñu may woo. kon actuellement ci say moyenu bopp ngay fajoo ci ngay lekkee aussi. loolu léeg-léeg ni moom si li may lekk moom waaw dina sama bopp lekk mais état moom moo jëloon en charge bi mais ñu ne ma kaay bi ma yor nii su ma demee ci hôpital dañu ma faj quoi mais maa ngi xaar léegi suba laa programme woon pour dem hôpital Dantec xool su ma demee ndax dinaa faju. ana say parents. man Fouta laa dëkk. Mhm. sama papa daa gaañu sama yaay laa nekkal. ana sa yaay moom seet si la. non mu ñoo sama mag bi moo ñëwoon hôpital ak kii sama rakk bi. Mhm. ñoom ñoo ñàkk leen ci man ci hôpital bi. Mhm. waaw. Mhm. sa yaay yéen a ngi jokkoo téléphone. waaw tey tey rek ñaari yoon jokk nañ téléphone. mais ni nii man maa xam ne ne atuma ma voyage dem dëkk ba foofu foofu nu mu soree. ndax ci li may sentir moom sax loolu laa ko ñaan quoi. na ma may fekk semaine rek ba ma sama yaram ma mun a ñëw. Mhm. moom instant moo fi gën mhm. euh, donc euh, mu ngi noonu ba déggee li mu wax euh, daaw na yaram trop métti na aussi parce que bokk na ci li mu wax li ma ci gën a jaaxal mooy accident bu toll nii waxuma Sénégal mais dem ba France 24 di ci def documentaire di ci wax. ak nombre bi ci kaañu nga ñëw Sénégal kilifa diine yi kenn tëddatul di joxe ay dogu kaamil pour ñu koy ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci wàññeeku. Euh, kon jàpp naa ne ci sama xalaat bu gàtt état dafa war a ci ñi nga xamante ni tey blessé nañ ci ba toog mais man mënuma comprendre ci lim wax nga blessé tëdd hôpital ñoom ñoo la génnee. ni la demal tegu lañu teguñu la ci benn condition teguñu la ci benn charge lu dul jox la benn papier ni la demal te bi nga demee bi nga ko njëkkee joxe ci hôpital bu caaree dañ la rejeté li mu ci gën a jaaxal nan la nit di feebaree def soog nombre bi ci gaañu pression boobu noonu nekk ci bopp ñu bàyyi la ngay jugee dëkk ba te ci sa place ak mettit boobu noonu yëpp nga koy dund. ñëwaat toog fii nii donc kon ñu ngi lancé euh, euh, appel état ak bonne volontaire yi nga xamante ni parce que tey. nee na ñu ngi lancé appel état ñu ngi lancé appel état Sénégal que Mansour fay le ministre incompétent que Macky Sall a élu comme ministre du transport et des vingt infrastructures waa ji nee na Dantec la jëm Dantec n'existe plus my friend y a plus de Dantec boo xoolee waa ji te kii suñu mbokk xaal pulaar la fuutanke ndeysaan mi ngi moytu mi ngi naan waaw gouvernement bi jël ñu en charge ci paj gi parce que mi ngi moytu ñu ngi koy moytuloo bañ a wax dañu bëgg yéen ñëpp ngeen def vidéo les rescapés ngeen yónnee ñu ko bépp nit bu gaañu ci accident bi bëgg naa nga contacter ma man Ousmane Tounkara sama numéro am ngeen ko soo leen ko amul ma répété ko

def leen ay vidéo ngeen yónnee ñu ko ku xam nombre de morts bi ku am liste bi ngeen yónnee ñu ko ku am tur yi ngeen yónnee ñu ko ku sa nit faatu te gouvernement yónneewul foofu ci sa kër pour jàppale leen ku sa nit gaañu te jàppale la ku nekk ci jafe-jafe bëgg nañu ngeen yónnee ñu information yi ñu tas ko ndax àdduna dégg ko ndax xam nañu ne genn wàllu taskatu xibaar ma ñëpp nag ndax am nañu baax waaye presque genn wàllu taskatu xibaaru Sénégal ay naaféq lañu ñu bari ci ñoom gouvernement moo leen di fay ma jox leen ay firnde ñu mel ni ay ñoom Aliou Sow ñu nekk wal fajiri ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñu wax dëggu euh, réew ñooñu gouvernement moo leen jox xaalis pour ñuy wax lu nekk gouvernement ñu mel ni ay Aïssata Diop Fall voilà ñu mel ni naa fekku chroniqueur u euh, euh, incapacité boobu nekk France Mati Fall ak ñeneen ñooñu nguur moo leen di jox xaalis pour ñuy sos ak fen léegi képp ku am jafe-jafe nga am ke incapacité nga am jafe-jafe paju nanguwuñu laa faj parce que prise en charge kayit yi yooyu ñu leen joxit tappale la rek yenn saay man ngaa dem ci hôpital sax amaana doo faju ma yeggali vidéo bi après ma ñëw ma tàggatoo ak gars yi bismillah am na ñoo xam ne bu ñu gisee ñii tey wallaahi lazim dinañ ci def lépp luñ mën parce que lii euh, nekkatul cadre jullit ak cadre leneen ak mbokk lii cadre nit ak nit la parce que ñëpp ci profité donc ñu ngi lancé appel autorité yi ñu ngi lancé appel bonne volontaire yi nga xamante ni mën nañu jàppale ñii parce que tamit euh, yàlla ma yàlla baal euh, buñ génnee ci hôpital ba daanaka dégg li mu wax ñun ñoo ci nekk di sonn ñoo ci nekk di leen woow ak tey fii kaa bi donc ñun tamit ñu ngi woo autorités yi ñu ngi woo bonne volontaire yi ñu ñëw jàppale leen teg leen loxo ñu mën a faju parce que kii ndaw la jeune la sunu moroom la mais gis nga tey mu ngi am yàqin ni moom est-ce que ay faaram damul mu ngi tiit est-ce que mbagam damul te jël nañ ko rek faj nañ ko opéré nañ ko génnee nañ ko ñëwaat na toog fii yaayam daf ko soxla parce que tey bi soog bi amee yaayam tiit na pour gis ko yaayam bëgg na ko gis donc kon nañ leen ko jàppale mu faju mën a delluwaat ci ay mbokkam ah, lépp lum ci mën a doon rek euh, dinañ ci gën a waxtaanaat ak moom euh, ñu ngi leen di jaajëfal tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax ñii di la seetaan. waaw ñi ñoom maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax. kenn mm-hmm. sama mag la maa ngi koy sant bu baax taxaw na ma fu ne li ma war a taxawee yow tamit sama rakk la taxaw na ma taxaw bu ne bu ne bu ne li ma war a taxawee. yéen sama dëkkandoo lañ. ñoom tamit taxaw nañu taxaw fu ne pour jàppale ma ci lépp. mais maa ngi leen di jaajëfal bu baax yéen tamit. ñëw bi ngeen ñëw fii. jërëjëf déplacement bi ak dérangement bi loolu yëpp mënoon leen bañ a fekk. Mm-hmm. ngeen bañ a ñëw. mais ngeen bàyyi seen yitte. Mm-hmm. di intéressé leen ngeen ñëw fii. jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal bu jërëjëf jërëjëf donc mu ngi noonu ah ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox yeneen dig daja ci suñu yeneen émission pareeguñ ak moom euh, mais loo gis dana dina am suivi ñu ngi koy yemale fii leen jox yeneen dig daja ci suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf. voilà ñu ngi jaajëfal euh, suñu xaritu journaliste yu baax yooyu People 221 seen liggéey bi rafet na wax dëgg yàlla. Euh, def ngeen liggéey bu jàggi dayoo may ñaan rek bépp taskatu xibaar euh, surtout les internautes yéen ñi nekk ci Facebook bi activiste yi yéen ñi nekk ci YouTube bi ngeen jàppale ñu information yi nga xam ne moom mooy rescapé yi pour mu jàll parce que Sénégal nekk na réew moo xam ne tey on s'est rendu compte que ce n'est pas un pays sérieux maanaam du réew mu sérieux ndax tey Euh, ginnaaw la nga xam ne moom moo xew ci accident bi ku mel ni Mansour fay tey waru ko woon fekkati ci bopp ministère des transports et des infrastructures Mansour fay tey dañ ko waroon dàq immédiatement limogé ko sur le faux sax arrêté ko dugal ko prison ndax incapacité am ci li nga xam ne moom mooy doxalinu réew waaye non seulement dàquñu ko waaye yëgal na sénégalais yi ne moom il est intouchable te Macky Sall ak ñoñoom ñoo ci ànd ndax Mansour Faye ñun ñëpp xam nañu incapacité am guddi yi ñu toll ci Sénégal euh, muy quelqu'un qui n'a pas la compétence de gérer un ministère ñu jox ko ministère kooku mooy Mansour Faye gars yi ma ñëw nag encore une fois indi leen li nga xam ne moom laa leen waxoon léegi ci ki nga xam ne moom mooy euh, bandi bi di Mambay Niang Euh, waxoon naa leen ko léegi nee naa leen balaa may dem dinaa leen ko indil ci tàggatoo pour lan la pour ngeen xam rek incompétence su niveau d' incompétence su ministre yi nga xam ne ñoom la Macky Sall fal ci boppu Sénégal parce que tey mënuloo ñëw ci ab réew nga falal ñu ay ministre yoo xam ne xamuñu sax luy zone mois voilà xaaral je te rappelle je te rappelle tout à l'heure je te rappelle tout à l'heure tout à l'heure voilà je prie voilà damay dem julli ji d'abord voilà léegi euh, zone UEMOA bi ma ñëw tak indil leen euh, vidéo wu ce nulard de Mame Mbaye ngeen déglu ko moom laa leen di tàggatool avant ma leen di jox aussi rendez-vous ne leen le président Ousmane Sonko nañ ko may quelques jours il va sortir et se prononcer voilà léegi nañu ñëw ci Mame Mbaye Niang. au sein même de la zone. dégg dégg parce qu'il y a d'autres pays qui ont leur propre monnaie. Il y a la Mauritanie. dégg nga. Mauritanie dégg nga. Il y a la Gambie. Il y a l'autre pays Guinée Guinée Conakry. Non, ah, non, c'est dommage, c'est naka ngay ngay lañ lay waxee ay zone UEMOA ci comptes des pays yoo xam ne bokkuñu sax ci zone UEMOA di wax seeni ay waxu mone ci as vu les gens de nulard que Macky boo xoolee lii daloon nañu aussi ci ki nga xam ne moom mooy Abdou Mbow ancien euh, euh, vice-président de l'Assemblée nationale ñu koy laaj luy eurobond Boubacar Camara di ko ko laaj mu ne ko lan mooy eurobond mu naan ma wax ma wax ma kamul luy eurobond genre nulaar yi la ñu am à la tête de notre pays c'est honte waaw soxna yaay ami c'est honte am nañu gàcce ci suñu am réew xam nga ne ñun suñu réew du réew ndax réew yii ñu nekk ñun bu ñu falee nit liñ koy njëkk laaj ma ma indilaat leen vidéo bi pour ñu tàggatoo ko gaay déglu leen bi ñu ngi nii waaye di lépp a ngi nii ci lañ fanaan def ñu ngi ñëpp a waaye di waaw Macky Sall nag yow moom yaa ngi wutal sa bopp ay noonu nit ñi a wax nga moom yow moom nga leer nag laa lay wax waaw. troisième mandat bu ko sax wax bul xalaat ñun ñu moom faral nañ ci yow. benn demul benn dëkk ñu ngi nii waaye di fépp. waaw. Mor Gueye Mor Gueye. waaw ñu ngi gis ngeen fi mu le ministre incompétent de Macky Sall a arrêté tout l'embouteillage du Sénégal nee na benn oto dematul benn oto dikkatul. imagine nga borom kër bu voyagé woon dem wuti lu mu lekk pour indil ko njabootam boo xam ne jabaram mënta lekk famille am mënta lekk. imagine nga loolu borom kër bu wuti woon lu mu dundale njabootam wala nit ku yëpp nit ku feebar ba koo yóbbu fenn pour faji ko imagine nga loolu Mansour fay ari arrêté na embouteillage senegal bi yëpp ma Macky looy xaar pour dàq doomaraamu Mansour Faye bii ku tekkiwul dara kii ku xamul dara comme yow looy xaar pour dàq Mansour Faye dàq sa bopp man man senegal fan la ñu jëm Macky kañ ngay xaar pour dàq Mansour Faye nga dàqaale sa bopp mon pays va mal quant à l'affaire de Ousmane Sonko Adji Sarr comme ni ma leen ko waxee affaire Sweet Beauté indi nañu information yi ñu war a indi yëpp leeralal leen ko indi nañu preuve yëpp tegal leen ko indi nañu dëgg yëpp tegal leen ko léegi man duma kuy gaaw a prononcé wu parce que xam naa ne Ousmane Sonko est un communicateur extraordinaire lépp lu ci nekk moom dina ñëw incha allahu rabbi ci ay fan yu néew mu communiquer bu communiquer à partir de sa communication nous on va réagir incha allahu rabbi donc damay ne gars yi nañu patienter rek nañu patienter gis naa sama frère yu bari ndeysaan ñu ngi fittaxu ñu ngi dóor bu baax di muy metti voilà on appelle toujours à se mobiliser nous mobilisons nous et restons prêts ñu déglu mu sell mi dina génn dina wax ñun ñoo koy yàkkamti rek waaye il s'est toujours prononcé sur les affaires sérieuses voilà donc incha allah rabbi dina génn te bu génnee dina wax te bu waxee dinañu réagir ñun bu soobee yàlla wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ci ay simili yu ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet ci réew